إنما المؤمنين والمؤمنات تقوه بلا la ilaha illallah waa papa yow nee ma li ma gis ni du dëgg kon yow da ngay woo di naan baa jamono la ne baa gisee dara sa papa daa ko war a bës si suuf aaram baa kaa seetaan bii moom bii moom dama ko nëbb bii dama ko nëbb maa teg sama bët bii astafurlah. yàlla mi ma tiim xam na ne lii maa si. ah aw alan dindiw de. alan dindiw de papa da ngaa woor. eh na jëkk tey mujj tey o gis ma mën a def li maa def. uddi si duggal si gémmiñ lii de sama yaay laa koy eh, eh. Eh, xam naa leen na est-ce xam naa leen na ba bëggee sa yaay génn si biti dem Côte moom yéen la lekk am ñànk tàng waxal ma naanam. ndox tey lekk sax sama yoon nekk. mala waw naa ni toog toog tooga songoñ a bon waaw waaw bona waay waaw aw naka la mën teg butéelab galaas bi aha daa yaakaar ne gune bi maa ngi la jarul ngay wax gis naa la waaw dugal si biir amul aw aw aw aw moom dinaa am bag wala bépp songoñ aw waa bona waay ah aw naka laa la woore xolo xolo butel ba sa gedda na si weeru koor bi dina gedda koor ka ub ko naan naa ka mu ngi sa biir la maa xool xanaa man gisuma la xoolal butel bi man maa gi gune maa ko fi ji la ma la wax gis wax may bët ma ne waaw jarul la ji ah, sum jarul la aw li naan si butel bi wóor na yombal xiyaam aw koor gi mën naa la koorte mën naa la koorte taw xam ne ne mënatu laa la wóor ah, a wóor a waxi guni ah, waxi guni man dama la gisoon waxi guni bi laa ma man sunguj man a ka mën a fenti laa la wax ka mën ba mag bi tooga waay ala ba mag man maa ngi fii di la xool ba fekkee ne laa la woon mën naa la koorte aw ma def mag manuma kaa xool de baba yaxal mu duyaa ba ma yaxal ma tuya ba doxol doxol namarandu namarandu ma ma doge moolu ma jëkko xool namarandu namarandu manu ma kaa gis lu nu bokk ci bàkkaar bi man daal gis na ma la irseer ah kame irseer ni la kaa faje irseer glace la fej ah kame irseer ni la kam man aw ma jot ak aw mi aw ma jot ak naan jëlal sosé Ah, a daxaa ñëwoon seet sama daxaa ñëwoon puuful li sama songoj manuma laa seet sa ndekete li noo wóor toog yépp ba nu takkusaan ba jotee wala wëndaalu wala wañaaru ndekete koor gi yépp fii laa ka koor gi dax métti si ma ba méttee si ma côté sañ na maa dog ah. yàlla moo ne laa manul daakaa daal di ah. man xew lan la xam na ma ne góor gi mbow wootewul koor yàlla woota koor koor ma ne koor baka kaneen sante woon crochet yi dina bari waaye yàlla ka sante moo ka feel boppam ko gis naa ko non ah ba pare continuer sa naana bëccëg soo jënd sa ñaari ginaar te nun nun nun ba noo koor teew bañ nun musulman yi nun nun jullit yi man ab la ma <laughs> ah, aw ma si dara rek jëlal say daal la jëlal say laa fi nekkee kii teelam tuddaan de kan Ibrahima Fall waaw ah. waaw man daal dama fi jaaroon. waaw i xamal la ne eh, Seck. waaw mu ngi laa yóbbanteem nuyoo ba baax a baax a baax. Seck waaw moom mu ngi fële sax. waaw côté Côte d'Ivoire. déedéet déedéet mu ngi Guinée équatoriale. ah foofu la na foofu mu toll naa. Ah. ah waaye ah. man naka noonu la noonu saxaar yi rek. waaw waaw Sénégal amatul na waaw. nan laa kaa léegi diggante bi ma si ma ma borom bay naanam ba fexe ba su ba loolu. waaw ku gasal ma ko u xóotal ma ko. waaw man naa la mën naa la nëbbu nit ñi waaye yàlla nag mënu laa la problème. loolu nit ñi la maa ma gis. man gis sama la. Ah, waaw man man waaw moo tax ma ne u sànq ma la. ah waaw u fexe tey si tey ji la. ah ma ne tey woor na ah weeru koor la la la nekk rek. waaw dama ne u assuré ma. sa loxo daa ñëw. sa loxo après rek amal laa ma wéefal kon na ñëw maa ma wéefal na ñëw ah a ah, nag si na ñëw boo ñëwee rek mën ma wax Momadou la xew la la. ah te amoo papa. ba ma la ba bayal baa ngi bang baa ngi ni ngaro bi. Ah, mu ngi ne yànga ni ngaro bi. dama bëggoon a toog ñaar fukki gaal. Ah, maa ngi jéem a borox lu fi. la waaw waaw. maa maa ngi jéegul quoi. ah. ah moom wax man mille francs laa woon quoi. li ma la war a woowee ba léegi waxaguma la ka. maa commencé à expliquer man 1000 francs sa tante là avant tout sa tante man ay ma andi si dëkk bi ay gambi ma ko ah. sa yaay maa ngi ko tebbee na mu tudda di Côte d'Ivoire ah, yaa ngi dégg ah. mais ay côté tànja la dëkk dama bëgg na ujj ko ab cër. papa loolu weesu loolu. li nga dima mille francs man loolu moo fi indi. ujj ko ab cër pour respecter ko comme ni mu respecté ndax kër ba neexee sa ñaaka symboliser ñoo ñoo la neexal kër ga ujj ko ab cër. waaw Mamadou xanaa la. ah Mamadou man mi la sa baay masuma masuma naanam ndox. waaw ah, man tey dama karmet moo tax ma lay laaj. lan laa la karmet ah, bara karmet. dama guddee tëdd moo tax. sam xel laa tëdd moom sam xel la dem si ay marmet moo karmet. ah. ah? karmet rek man garaaw. ba léegi gëm jëmmalaa. fexeel u dem ula gas wa ila uy seet ab saret loolu metti ndax ab seret ay koppar a ngi si te liggéey boobu du liggéey bañaa jombe ñaaw ñi ko yor dañ si am xaalis ba du jeex oh, war na laa mën a ab coono ci biir kër ah waaw kii war na laa mën a teggal coono waaw nga noppaloo ko ay moromam doo nga ñoo fi nekk di dem géej mën ma 1000 francs man ma dem. yoruma 1000 francs ah papa yow tëm na. yoruma 1000 francs fexeel nag si sa bopp u jéem sa ndikil bopp u xam ne ne nag man ndikki ma aw c'est fini ma ka tik papa loolu naa ko ma ma gëm jëmmalaa di ko jox a ngi sa kanami karaw sa kanami suuf sëxana. papa yow tëm na wax loolu. waaw loola ma laa wax waaw. waaw li mille ma dem te bëgg na sax wateef gi watu nii comme man ne u dindi ka. ah déet u dindi ka ma nuraale aw dindil dindil dia jey bi dindi ko jogal u dem waaw ah, ba na waaw maa ngi dem bi nga tëkk ñaare ba léegi xool kenn mënatul laaj xaalis eh, eh. mais 1000 francs di nga ma ko jox de dama la sagu ndey de ah, wa sa ni bar de la saga de dama la saga waay yow ah aw li ma tebbi da ko mën tebbi aw a gënal a gënal lamba am newe am newe a ko gënal lamba waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw ah waaw ngi. waaw ba ma ba du kon a koor man a ah? ah, koor gi ma si ah, mu mëtu ma ma soppa mu ma waajal tampo ba di ma waaye daan na ah. ah Momadou mii Momadou mii. gala yi ma digga ñangal war naa ko see dugal. yi ma digga ñangal. kii mbagam yi gis naa <laughs> koor gi ma si jaaxal man baa ma waxee ma woo Alsane Diop. waaw mu seet ak combat. war naa a bëre si gala yi ma gis ña nga. war naa a yii përë. <laughs> kii ma gis nii xam na ma ne ba duggee si làmb moo la doon suuf si. ah man la arrière suuf si. ah suuf moo tudd chaque ah, ma si dara dara dara dara dara saa toll mënoon naa ko de. xam nga ba saa mënoon naa ko bi. ma ne gune bi gune bi gune bi ab arrière la moo kaa tële. nga la arrière xam nga la moo du mën a bëre waaw si yaay ji la ko banaana bi waaw banaana rek lay dunde banaana ka bi banaana loo moo tax akace akace akace akace oh, arrière foo arrière moo yaay te loo moo tax nag ay ah. lii moo tax ma woo la démb si guddi ma naan fexe naa fi ñëw donte ah. ne si koor la nekk ah nga ah, allah waa naa macha allah waaye shukuran shukuran ah lii daal ba du ngoone koor ah baa tegee sa njëgëndaay sax au sollu sax baax na ah kay waaw basang baax na moo tax ma bëgg laa xamal ne waaw faaw ñu jël duñu duñu fa jë fii la ma kaa tagge si kanamam waaw duñu fa jee. waaa ña mel ni ñoom ñoom nga fa. bàyyi la wax waaw. Gambia school laa ko jël. Gambia school. ay alam ganda. Gambia school. man de maay sama aaw bopp moom. waaw kër man maa fi aawa tamay sama aawa boobu yu kakal non moo dëgër yu kakal non yaa xal naa rey suwa kër gi maa fi sama aawa kële mat ah? kële dem naa waaw ah al na laa rey i ngi woon si bés ga soto ko sobee yàlla du fi dugg si kër gi mu ne kaa ngi woon si bés ga soto ko li ma jël décision moo la ne ba ñëwee si biti laa jëm si biti si biti si kër aw daal ndijaay kooku ba ñëwee may ka bulletin nii rek bulletin nii la ma kaa jox ba ñëwee may ka waaw waaw comme ni ka nekk nii. Mm-hmm. sincèrement gi nii. waaw baax na man dañoo jël may dañoo jël may tànk. waaw ba fii ndox mi fii laa yem comme que damaa seebal. waaw ndox mi fii laa si omi fii fii fii fii. fii laa yem ah waay waay. waaw su nekk daf tubaab. Ah, ñoo ñoo xooj kasi ba tànk yi gi ja. xolliti tànk yi. la jox si kaw. ah ñii dunda dunda ñaareel ak asaade ah dunda ñaareel ak asaade gis naa ñii ñii waajur dañu ñe yar dañu ne leen xam nga lan la mën a sant waaw sëy ba dee waaw lan la mën a sant bal bi rek la mën a sant korosotel u xañ u yob si latéral droite bi ñen a déet waaye u wàcce si milieu terrain bi u góol bi nag ku ah, ne yàlla nag maa ngi nag waaw u retere retere dóor retere daal dóor retere mudah diduga di dugga lagi neexew pala la la neexew def am si pala bi la waaw waaw ñu koy kal nii ah. sama morom nga fa ma seetal ya, la ah. mu ñëw def ni man jël sa kër ga nekk fa aw bokk boo bëggee rek wax si te coupé mais pañay la gambor orang gambor yow daal bëgg rek mi ah ba ma joxe ma ne du ma kenn ah mu bëgg rek toog naa bàyyi na ma la mu ne ma la mu léegi ala ma delloo avance léegi ba ma ma jël déedéet du ñu soray du ñu soray du ñu soray du ñu soray xoolal euh, xoolal ko euh, xaaral pour ma la pour affaire yi ndogul waaw waaw waaw ma ne songoñ waaw songoñ da ah, ah, ndogu rek fukki tubaab ñaar waaw ma ne eh, eh, eh. waaw waaw ma ne waaw waaw ma ne lii naxari naxari ah ku fa laa yor bo balaa ngeen di ñëw ah ah ah, ah bas la de bas ma papa si sango bu ne bëgg a téye de na bas waaw waaw demal marché ñëw demal marché ñëw tey nag su su son waaw ah, amul benn problème doge si si soo de am naa si si soo de su su son mu ne xoolal doge si si soo de ah, ah, ah suñu ñaar ñii genre yi demee nii laa si am u fàtte daa espalaate waaw u bépp naxar baa xamante ne nekkoon na si sa si di bopp naaj waaw da kaa dal di soo fon daxaw que xam benn affaire ma wax la ka xamuma ko woon ma wax la benn affaire moo la ba la nuru ab sëy waaw moo fi am waaye ab sëy amatu fi la ko nuru ah maam seex a wax ah waaw nee na la nuru ab sëy bàyyi sëy Moustapha Sy waaw moo ko wax waaw mu ne la nuru ab sëy moo fi am waaye ab sëy amatu fi ah waaw waaw ay songo balaa mën a xam ne que la bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw seetal ñaari golon réalité yi bokkul neexu la weeti balaa xam na dëkk ba ne daal tukki waaw baa tukki loo doo xam foo dëkkee neexee Youssou Ndour way naka ah boo tukki doo xam foo dëkkee neexee ah fi mu toll a ngi sa si si si hmm? sa sa diggi doole de ñëwaat naa ñëwaat naa maa ngi si maa ngi si ay baa ma ah, booye mi dina mare